société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen e fi mu tegoon tànkam ba tey teggiwu ko ci mbiram fiche de parrainage yi mu war a jox Ousmane Sonko lii la yéene kaay yu bari xëy xamal ñu réew mi quotidien ne démb mandataire Ousmane Sonko ba gontooti na ca DGE yóbbaale cantaan ak Sénat ngir ñu jébbal ko ay fiche de parrainage waaye direction générale des élections lank la defati ba tëdd ca naaj wa tax ay awkaay Ousmane Sonko réew mi ne ñu sàkku ci Sénat mu wuutu DGE jébbal mandataire Ousmane Sonko ay fiche de parrainage mu mën a waajal élection présidentielle bi le témoin ne càkkuteef wu bees la awukaay usman Sonko yóbbu ca kanam Sénat ne Doudou Ndir defal li DGE waroon a def daaf moom la ko war def na ko ndax yéenekaay bi nee na dugalaat na Ousmane Sonko ci fichier électoral bi gannaaw bu tribunal bu Ziguinchor àttee ne noonu la yëf yi war a demee demub Ayib Daffé ga ca DGE ni mu demee démba moom la Vox Populi xëy tay di ñu nettali nenu ba mu duggee ca daaf loxoy neen la fa génnee ñaaw lu njuuj daaj gu ñu lal ci wàllu politique ak xoqatal gu ñu nekk di def kandidaawam Ousmane Sonko ay Daffé it nee na yëf yi fu nu ko war a xeexee rek daana ko fa xeexee moo xam ci làngu politique bi moo xamit ci kanam yoon ci biir wal Walf Quotidien Ayib Daffé ne banditisme administratif la direction général nekk di def DGE mooma wal Walf Quotidien nee na ma ngay wéy di lànk jox Ousmane Sonko ay fiche de parrainage loola tax Sud Quotidien biral ay jiixi jaaxa yu am ci tëraa yu njaaxanaay bu DGE mi war a organiser élection bi nu dëkmal mu njaay si sene weesu ko moom directeur exécutif bu ONG 3D joxoñ coow lu nar a juddoo la tax élection yi yéenekaay bi di la fu xamal ñu ne awokaay Sonko ña ngay ërtal Sénat ngir balay wutam parrainage di wees ñu wuutu DG ya def li leen war jox Ousmane Sonko ay fiche de parrainage yor yor bi ne bu weesoo wutu DG ya jébbal Sonko ay fiche de parrainage awokaay Sonko itam sàkku nañu ci dudu ndiir mu daan ca ndeel Fall booba jamono président Macky Sall ma ngay tagg général Moussa Fall rafetlu liggéeyam réew mi quotidien ne kàddu la yum yëkkati ba muy inauguré siège état major bu gendarmerie ci xët gu njëkku réew mi quotidien Macky Sall gàddu wàllub e réew mi ne ma ngay xeex ak terrorisme trafic de drogue piraterie maritime pêche illicite di napp gi jaarut yoon cybercriminalité ak réseaux sociaux yeeg njombe yi cay am journal bi xamal ñu ne fanweeri junneeg juróom ci ay gendarme la Sénégal bëgg am fii ak atum la le soleil dëggal ko ne loolaay jubluwaay bi ngir yokk doole gendarmerie président Macky Sall ci yéenekaay bi ma ngay wax li waral ñu tabax siège bu bees tàq ngir gendarmerie bëgg ñu méngoog jamono nee na bokk na ci li ko sabab moom Macky Sall nag le soleil nee na tàgg na général Moussa yeesalaat itam kóoluteem ci moom muy kàddu yu ñu enquête yeggee ba nuppi xayma tolluwaay gendarmerie ci juróom-ñeenti légion juróom benn section de recherche ñaar fukki compagnie ak juróom ak téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróomi brigade waaye soldat bu baax Macky Sall nee na boo koy wër ba gis général Moussa Fall mën ngaa taxaw ni muy doxalee liggéeyam njiitu réew mi ngi koy rafetlu ci yéenekaay bi di Vox Populi ci Les Échos moom daanaka président Macky Sall tagg lay def général Moussa Fall mim ne liggéeyam mi ngi koy def ak fulla fayda def ko it ci kaw professionnalisme gu mucc ayib Macky jaaxle it dolli ca ne général Fall soldat bu baax la soldat bu réew mu ne soxla ndax saa yu xëyee lay yokk doole bànkaasi réewam ca lay dox awokaay Ousmane Sonko yi ñoom ña ngay dox wutali cour suprême gannaaw pourvoi ba agent judiciaire de l'état def ci àtteb juge Sabassi Faye les échos mi ñu ko xamal nañu awokaay Ousmane Sonko yi tontu nañu seen mémoire en défense déposé nañ ko cour suprême nag la ñuy déglu fi mu ne te audience bu gën a jege yéene bi nee na daanu leen ci ci libération ay awokaam ña ngi koy dëggal ne Sonko daaf dugalaat na ko ci list électorale yi kon fi mu ne électeur la te éligible na li des kay awokaa yi neenu mooy ñu jox ko ay fiche de parrainage am bés bi sax xëy ci wàllum parrainage neenu yëf yi dañu koy weccee carte sous table la ko yéenekaay bi tuddee yóbbu ñu ca banlieue bu ndakaaru ne foofa daa joxe ñeenti téeméer mbaa junni ngir ñu mën laa pare ne Jurbel moom yéenekaay bi ay entrepreneur électoraux la fa gis ne seeni affaire a ngi baax am na ku ne juróomi téeméeri fiche la jaayee benn million la na gars yi parrain la nu soxla te moom dafa am lu ko war ci njaboot la tribune booba jamono samp awlaaj ci xaalisu covid bi ñu ne dañu koo lóobal yooya milliard mbaa narunu koo fàtte yéene kaay bi ne ëpp naa def ndax wi lépp njombe ñépp la yëngaloon ba ca bitim réew te it mbir la munu mënta fàtte ni ndax dafa yomb ba ëpp ci gëtt yéene kaay bi l'observateur booba jamono jox kàddu ay boroom xam-xam ci wàllu démographie ak économie ñuy artu ci ndaw ñi ni nu bar ci askan wu Sénégal gannaaw recensement askan wi mën naa nekk charge ci état waaye nag lu baax la ngir ëllëgu réew mi ca Kaolack booba jamono coowal néewub ki ñu ne góor jigéen la tën taaloon ko fa ba tey fayagut yéenekaay bi di l'observateur gannaaw ba mu ñu yeggee ndénkaane Cheikh Fall yu mujj ci way juróom wu jigéen ak dundam gu yëngu woon nga ca Kaolack ma nga nuy xamal yit fa enquête police ba tollu libération ba jamono yeggee ñu lu tukkee ci enquête suuf sanu luubal ca Sicap Liberté 2 nee na ku tudd Cheikh Diallo boo lijjanti ay këyitam ànd ci ak notaire yi di maître Binta Rafet Diouf ak Aïssatou Niang jaayee boobaleb terrain te moomu ca lenn enquêteurs yi nag ba ca laajee conservateur Grand Dakar ba woon da caa raxasu ba set raggu deram takkal ñaari notaire yi ca woowale waxtu lanu source a di xamal ne Madiambal Diagne terrain ba mu doon xëccoo di titre foncier 44 19 ca Ngor Almadi ñàkk na ko ndax dañu ko faa dàq Vox Populi dañu xamal ne coowum suuf am na ci mbéy tax ñu tegoon loxo maire ba di Njañ Jóob ak adjoint wam lataa ñu leen di bàyyi jaara mu seen petit gàlle mi bawoon mi quotidien ne jëlaat na ko carrière am seen petit gàlle googu fësal ko entourage am di ñu ko wër waaye tam projet yu mu sumb yépp waxtaan wu yaatu la sekk ak Anna Thiaw ci réew mi quotidien booba jamono stade di waxtaanee joueuru sénégalais yaak seen nekkin ca olympique de marseille ne yàgg na lool ban fa tàmbalee jongante waaye yéene kaay bi ne jongante yu tegu ci pression la Modou Lo moom ci sunu làmb mel ni ko amut pression ndax ma nga naan Ama Baldé maa ngi lay xaar loo bax naa ko ngeer bi may borom te itam tëj naa lépp bi it nee na